ngir ku ñu tooñ bu duggee si kër wax loolu bër na ay yoon yoo xam ne euh, bi si njëkk mooy dangay wut xobi mbante lu xaw a bari boo ñëwee xob bu si nekk nga bind si arafu wala abdullah wa abdu ba mu jeex ba aay bi jeex nga takk beneen aay bi xul alhamdulillahi moom it ba aay jeex ba wa kabiroo takbiran soo noppee da nga boole kaani gu sew nga wal ko ba mu nekk sunguf nga wut biteelu siro yu xonq yooyu veer yi nga sol ko si awi ko morso bu xonko nga tak si bunt kër la nga metu soo be nga tek su wut ay ren ren mbante bande momit bol ko kani gu sew ak ñu beuy wu jigen nga awee ko morso bu ñuur nga gas ci buntu kër gi ba nga sul ko kep ku ñu togn su fa awé dina jëfal kep ku ñu togn bu fa awé dina jëfal beneen moy fi nga xamne mënu ko na fex ba wut paquet puso waxtu wuy agni bo mi am bari si këram mu jël puso rong si taatu ndab li ndab loolu ñu doon puso boobee képp ku si yor sa loxo bi fekk lañ tooñ da nga wax. bu dee kii nga xam ne dafa tawat dem hôpital ñu xool xool gis ñu dara mu bëgg xam ba dañ ko jàpp wala jàppuñu ko kooku day wut suñu suñu.